Je vends une Mercedes 2016 automatique complète. Kilométrage 67, carburant essence, Mercedes classe E, 6 cylindres, full option. Caméra recul, toit ouvrant,

moo waral tey ñëw fi nga xam ne mooy Ouest Foire seet nga xam ne bi mu ngi ci biir làmb di ci liggéey lu am solo mu Ibou Ndiaye ñoo ko bàyyi nekk communicateur traditionnel nekk ci làmb yi di ci def lu am solo ñu fas yéene waxtaan ak moom làmbi démb ak làmbi tey ak carrière am ci biir li nga xam te mooy ci biir wàllu làmb dañ koy bàyyi mu nuyu nuyu ñuy suivre su ko defee ñu dugg ci waxtaan bi mais lu jiitu loolu ngeen wéy di abonné bés kolos notification bi xaar bi di wooy wàcc comme ni ngeen ko bëggee Ibou Ndiaye ñoo ko bàyyi maa ngi lay nuyu di la siyaar Euh, maa ngi lay fay euh, ginnaaw bu ñu sante yàlla nag julli ci Seydina Mohamed sant xaadim rasul ñu ngi nuyu bokki téléspectateurs yi jàkkaarloog ñun di ñu seetaan di leen di ñaan yàlla émission bi muy def ñuy def mu fekk doomu aadama yëpp ci jàmm waaye li ëpp solo ci àdduna mm-hmm. mooy un bon sénégalais danaan lii laa liggéeyal réew mi waaye du wax lan la ma réew mi liggéeyal mm-hmm. yal na euh, site internet bi bokk ci laay yooyu amiin ba nga xam ne euh, àdduna bépp koy seetaan ci kattanu yàlla ak yonent bi am na solo macha allah yal na yàlla nangu ñaan mais père bu ñu dee présenté Ibou Ndiaye Niokho Baye mooy kan euh, Ibou Ndiaye Niokho Baye mm-hmm. un jeune griot mm-hmm. boo xam ne fii laa juddoo à Dakar du xamoon taxoon Mm. rue laa juddoo màggee rue onze mm. euh, jànge au lycée Vanvo muy lycée Lamine Gueye mm-hmm. biñ ma daqee à l'école itam mag ñi moo tax yal na yàlla yokk seeni leer ca barsax Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam parce que dañ daan def ne xale bu réussirul à l'école mm. ñu yóbbu la nga jàng métier mm-hmm. ci loolu la ma suma yaay ju baax ja yóbbu ci suma grand frère Njaga Seck nekkoon ca Sandaga dans les années 62 63 mhm. ba 68 ci laa beru nekk maître tailleur mhm. euh, nekk vingt ans maître tailleur marché Sandaga mhm. bari na ay doomu aadama tey yu jàkkaarloog man ñii maa ñëw seen tenue de mariage ñii bañ leen di ngénte la sol maa ko ñëw bokkoon ci tailleur yi dàq ñëw ci Sandaga nag waaw loolu loolu moom Hmm. dama koy ñime naa koo wax senegal gépp di ko gis wala ñu di ko dégg hmm. euh, métier dafa am solo ci doomu aadama hmm. waaye taxul woon itam ma bàyyi sama danoo maam ndax man maam mu ma am fara làmb la euh, ñaari boor yi ma féete muy sama wàllu baay ak sama wàllu ndey sama wàllu baay ngamee neen laa dëkk euh, géwél bu sant njaay rek Ngammee neen la meññ. Ngammee neen euh, waaw Ngammee neen. moom fan la euh, raison. Euh, Ngammee neen. Mm. dafay askan woo xam ne ci biir géwél. Mm. mooy noblesse su géwél. noble géwél noblesse waaw sama wàllu yaay itam ndëng leen laa dëkk. ndëng leen sama maam moo doon baj géwél làmbaay. Mm. ma xurajee ceeri jeng sama maam mi nga xam ne moo daan togg ak yaa seen ndikku baayu alaaji Maodo Ñang baayu alaaji Góor Lambaay Ñang baayu alaaji Malick Ñang mm-hmm. sama maama daan wéeroog moom ca guy ndënge tey tey boo demee Lambaay boo laajtee ana guy ndënge mm-hmm. ñu woon la guy ndënge mbay ndëngal sama maam nag moo daan wéeru ca guy ndënge googu mm-hmm. uh, ak jaab yaa sindiku uh, baayu alaaji Malick Ñang uh, may baj géwél ñaari yoon baj géwél ci ndey baj géwél ci bàyyi faral lamb laa sama biir kër wayuru góor mais suma suma maam moo doon euh, baj géwél lambaay euh, ci ay jamono kon hmm. yaakaar naa ne loolu rek doy na géwél ma jàng na tëgg ba man ko hmm. nekk maître tambour major euh, Pikine yaakaar naa ne képp koo xam ne tey yaa ngi jàkkaarloog man rek xam nga ne Pikine banlieue la woon boo xam ne bi ndakaaru gépp taxaw Pikine lañ jëm parce que Colobane mu nga Pikine euh, Ndimsaat mu nga Pikine Angal Mous mm. mu nga Pikine Baye Laay mu nga Pikine Daaru Xan mu nga Pikine Kipp Koko mu nga Pikine Pootu mu nga Pikine loolu lépp ay quartier la woon mm. yu nekkoon fii ci biir ndakaaru tey mm. moo jur ay HLM moo jur yooyu yëpp Ndimsaat fii HLM nekk tey fii marché bi nekk tey marché HLM. Hmm. fa la marché ne woon mu doon béréb boo xam ne euh, fa la ñu déparé ñun ñëpp booba ay mbaar fi ne ci la nit ñi dëkk ñii ay néegi ñax ñii ay barak. Hmm. booba tabax euh, pour am ko c'est tout un problème. Euh, tabax ji fi jëkk am tabaxi kirti nding la. dañ daan dugal sàkkati biir ba pare. daal di raax sàkket kooku moo doon tabaxu kër ndég hmm. waaw bi mu fi jógee ay pant fi ñëw ba mu fa jógee parce que euh, premier étage yu barak bi ñu njëkk a defar hmm. ci Médina doomu adama yi dañ doon daw di ko seetaan yi naan taaxum kaw bant ñu ngi ko soog a gis euh, kon yaakaar naa ne euh, tambour major googu ma nekk hmm. ci laa tëggal le grand champion Pape Diop le champion d'Afrique ki nga doomi jama jooju nga xam ne ñoo bokkoon classe. Hmm. man ak moom ak Maguette Wade bu télévision euh, bi faatu bër euh, bërki dem euh, ak Thierno Ndiaye. Hmm. bu TFM. waaw Pa ak bari na woon na. Hmm. ñu ñu ñu ñu ak Papa bu Caaroy. yi Kan presse ñoo ñëpp ñoo bokkoon classe. kon Pape Diop nag ma ànd ak moom étranger. ñuy ay xale solondoo polotan dóor dàqeendoo footballandoo ba bi ñu demee ba ñu dàq ko école moom mu dem euh, hmm. bi Dakar di fa jàng tolleri tollier la doon jàng bu ñu bu ma dem Sandaga jàng métier ñaw momu mu muy jàng tollier bu ñu ci car bi ngi liy daw Pikine ci ay oto bariwul. Hmm. Mor An Guèye moo yoroon benn kaar moo ñu daan yóbbaale man ak pap job ci biir loolu bi Pikine commencé évoluer nag mbappat yi commencé am euh, ci la Pape Diop di bëri ci mbappat yi. Mhm. Pape Diop euh, xandaalu lañ ko daan wax. xandaalu parce que dafa amoon ay tukulóor yu ñii ñii tudd bingo. Hmm. benn tukulóor bu tuddoon bingo. bu mën a bëree. Hmm. Ah, euh, benn euh, tukulóor bu tuddoon euh, naati fàtte fàtte naa ko waaye bari woon na ay tukulóor yoo xam ne ay bërekat la ñu woon. Hmm. mën a bëre ñoom daawuñu ngemb caayee lañ daan bëree. caaya waaw waaw hmm. lañ daan bëree mais bu Pape Diop Masana ñëw ci mbapat dañ naan hee kandaalu ari parce que dafay bu la masaan a jàpp dalay lay wëndeel ba nga xiir. Mm-hmm. mu soxlaa daan. soxlaa euh, maa ko tëgal mbapat maa ko tëgal arène. Mm-hmm. Euh, mu bokkoon ci mbër yi nga xam ne moom itam kenn du wax làmb te tuddoo Pape Diop. Mm-hmm. amul benn mbër mu dëkk waalo bu ko mas a daan. dafa daan Ousmane Ngom daan Samba jaw daan Souleymane Diaw. daan Madiaw Ndiaye. daan remarque match benn benn benn daan Alioune Fall. benn euh, euh, waalo waalo rek la match ni lal mhm. muy Alioune Seye mhm. ñaari yoon kon yaakaar naa ne euh, kooku mhm. bokkoon na ci champion yi nga xam ne ci tëggal bi ma ko daan tëggal nga xam ne ba muy dajeek Robert ba muy dajeek Ousmane Ngom ba muy dajeeg Mbaye Guèye le tigre de Fass mm-hmm. ba muy dajeeg Double Less ba muy dajeeg booy Bambara ba muy dajeeg Souleymane Diaw ba muy dajeeg papakan mm-hmm. lu ci nekk maa ko tëggal euh, moom rek lañ fi wax na le jeune champion de Pikine et rompu aux technique et à la rite mm-hmm. euh, jóge na Montréal ñëw ñu ne Pape Diop est avec un pied plâtré mais la tête haute parce que moom rek moo indi médaille d'or kon ku ànd ak champion bu mel noonu. waaw tëggal ko ba carrière am jeex. Mm-hmm. Boy Niang numéro un maa ko tëggal ba mu ñibbi àllaaxira. Mm-hmm. Euh, Mansour Diop maa maa ba mu bàyyi làmb euh, keroog ba ma tëggalee nag euh, Njaga Diop. waaw doomi Pape Diop ci laa damm galan yi nag. Mm-hmm. dal ne bàyyi naa tëggal mbër. Njaga Diop benn. ci la ma Gaston Xaali Mbeng maam itam su lay sargaan xool. Euh, man Thierno Ndiaye Mamadou mbay Garmi. Mhm. booba ñu nga woon 7 FM. bi nga xam ne moom la Youssou Ndour jëkk a euh, ubbi. Mhm. ànd koog Baara ak Cheikh Tall Dioum ñoom ñett ñoo ñoo bokkoon 7 FM. 7 FM nekk ca Sandaga man Thierno Ndiaye Mamadou Mbaye Garmi. Mhm. ñu di fa def benn émission làmb. fa ci la ma Gaston jëlee. ne ma dama bëgg. Thierno Ndiaye ma boole Gaston ne ko euh, euh, Gaston ne ko ñoxo mi dama bëgg mu yoral ma sama micro central. 30 hmm. ans yi Gaston def ci làmb yëpp ma maa yor micro central ànd yéen ñaar ba nëgë ni tey jii. Hmm. ñu ànd te dara ñaawul. léegi li ma bëggoon xam papa doguma la mooy kañ nga dugg ci milieu bi ci wàllum communicateur traditionnel ak lan moo la ci poussé ba nga dugg ci à 100 pour cent. xam dañ na communicateur traditionnel. Mhm. man duma communicateur traditionnel. Mhm. loolu waxu tubaab la rek. Mhm. man géewal la géewal. xam nga géwél. géewal lañ wax. géewal waaw. waaw ki ñuy géewal. waaw bu mënta wax lu euh, intéressé waa géew ba wala lu jariñ waa géew ba. jarul muy wax. dëgg la ndax ñetti waxkat yi rek a fi am. ki ñu waxloo. waaw ki war wax. waaw ak ki wax war. ki wax war. ki ñu wax loo. waaw daa bëgg ko ko wax loo rek lay wax mbaa dootul wax. dëgg la. ki bàyyi métier yëpp choisir wax. Hmm. na fexe ba la ba la muy wax mu bañ caa jum ba naan bu ëllëgee ngeen jéggal ma. dëgg la ñun ñi wax war na hmm. nañu seet luy defar. waaw te du yàq. Hmm. luy ñaw te du xotti. waaye lu tegu ci dëgg. siraatal mustaqim Mm-hmm. Vous êtes jeune bachelier, étudiant ou professionnel. Vous êtes créatif, ingénieux et passionné par les domaines qui gouvernent le monde de la science et de la technologie. Profitez de l'offre de formation dans les filières telles que réseau et télécommunications, statistiques et informatique décisionnelle, gestion des entreprises et des administrations, gestion logistique et des transports. Cela vous est offert par Ziguinchor Institut Polytechnique, ZIP. Les inscriptions sont en cours et se poursuivent. Il est encore temps d'effectuer vos démarches pour une admission dans l'une de nos filières. Pour plus de renseignements, visitez notre site web www

faïence yi nga xamante ne dafay décorer sa cuisine ba mu ne boy ak li nga xamante ni moo di sa saldeben ànd ak décoration bu amul fenn ay karo yoo xamante ne boo ko defee sa façadu kër da ngay mel ni ku nekk ci panaal établissement Khadim Rassoul seeni karo du jël benn yoon ndox ba noppi ay qualité yu baax la ñuy jaay te seen karo du yàqu waaw waaw kon nag yow mi bëgg ay karo yu baax dawal gaaw seeti waa établissement Khadim Rassoul ña nga nekk ca Parcelles Assainies ca booru marché police ba le numéro de téléphone 33 820 39 95 wala 77 720 32 44 établissement Khadim Rassoul nak dañuy ubi du lundi au dimanche à Damane kon nak bo bëgg ay kar yu bax dawal gaaw wa établissement Khadim Rassoul ña nga nekk fofu ci Parcelles Assainies ci bo marché police établissement Khadim Rassoul le